الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu bi préparation action sociale bu jameetu ansaaru din di amal si biir réew mi ak si bitim réew waxtu wu ne si xew-xewu Medina Baye njiital sëriñ Aliou Cissé Niang bi yor départemental bu Kaolack ànd ak action sociale ak action féminine ñu lëkkaloo ngir liggéeyal Mawlana Cheikhul Islam si weeru koor gi liggéey ba am solo fee ci kër Abdoulaye Bayero ñu bàyyi njiit li sëriñ Aliou Cissé Niang mu yëkkati ay kàddu yëgal mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi bi la xew-xew nan lañ koy département de Kaolack ñu ngi leen di nuyu di leen ziara kenn ku nekk ci turam ak ci jëmmam ñu nuyu àddina yëpp taalibe fu ñu mën a nekk euh, di leen ndokkeel ci weeru koor wi di leen baalu ak di leen baal ak tey jii ñu ngi woon ci suñu préparation action sociale bi nga xam ne commission sociale ak commission féminine dañu am habitude di ko def ci eh, événement yu mel ni koor tabaski ak gàmmu ak yu ni mel Euh, loolu lañ doon préparé ak présidente euh, Adja Moussoukoro Mbaye euh, moo yore commission sociale bi ak Adja Anta Sey nga xam ne moo amee commission féminine bu groupement départemental de Kaolack ak membre de bureau bi yëpp ak présidente Mariama Fall Lalla bi nga xam ne moo amee entrepreneuriat féminin bu Ansaroudine groupement de Kaolack te nag ni nekkoon ci préparation yi rek journée bi nuñ koy defee ak fuñ koy defee ak luñ ciy def donc duñu def rek lu may pour teunk wax ji baye len ak présidente euh, commission sociale bi mu wax lan la programme lan la bëgg def ci journée yi salam alaykum الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم نسانت يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم دي ديف تواصل سي سونو سانغ بو تيد بي مولانا شيخ الاسلام الله ابراهيم نياس di ziare xalifa bu tedd bi cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass bu ma ko ziare ziare imaamul alfayda Tijani cheikh Ahmed Tidiane Cissé dina ziare pays bi yëpp bàyyiwuma kenn njabooti baay gi ak mbokki taalibe ak muqaddam yi bàyyiwuma kenn ziare naa ñëpp. di wax rek ne alhamdulilah euh, euh, euh, ñu ngi ndokkel doom aadama yi ci weeru koor gi. di ñaan yalla yalla nañ ko or ci jamm and ak fajuk aajo ak nanguk ñaan ak jéggalu bakkar waye di ñaan yalla ñu xor ko at yu bare bare bare bare bare fekke at yu bari ta rafet fekke it muj gu rafet dund gu dal ak barke di wax ne commission sociale ño dajé di wajel sen besu action sociale li ñu ci parel nak moy préparer ay kitu ndogu euh, euh sachet yo xam dañ ciy def lu nit mëna ndogo pour séddale ko ñi nga xam ne ñoo war a ñoo ko ñoo ko ittewoo muy néew ji doole yi miskin yi waaye tamit dajale ñi nga xam ne ñooy handicapé yi nga xam ne handicapé moteur lañu e, e, ñu defal leen ay consultation consultation gratuite yoo xam ne en neurologie lay doon defal leen suivi boo xam ne dina leen mën a dimbale ba bu ëllëgee ñu mën a active ci société bi mën a am e, xëy mun a mën a am itamit prise en charge ci seen bopp it am suivi boo xam ne dinañ leen ko mun a defal ba lépp lu seen yaram laaj ci wàllu wérgu yaram ñu mun caa dimbalanteeg ñoom ak uh, ànd taxawuma bi nga xam ne ñoom ñoo ñëw pour accompagner ñu muy association ànd taxawuma ñoom la ñu pareel àndal muy sama doom uh, uh, Ibrahima Ibrahim Aydara Ndiaye mi nga xam ne mooy président association boobu moom itamit mu ngi ñëw lënkaloo ak am Ansaarul Din pour indi euh, euh, taxawaayam ak docteur Pedro neurologue nga xam ne mu nga jóge ba Europe euh, ñëw ngir jàppale si ñëw ngir defal leen ay consultation génétique

ci ndigalu khalifa cheikh Muhammadu mahi ibrahima Niass ñu ngi ziaré yi tamit ki nga xamné moy le président ansaruddin cheikh munhamina ibrahima Niass ci ndigalam ak ci ndigalu cheikh mahi aline cisse le porte parole cheikh baba lamine borom gam gi bàyyiwuñu kenn ñepp Dal ñoñu jox ndigal ñu nekk ci liggéey boobu alaykum wa rahmatullahi taala wa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi o ñepp ci sociale bi ñuy def man maay Anta Seye Thiam présidente commission féminine bu département bu Kaolack maa ngi oo ñëpp ci sociale bi ñuy def at mu ne dañu koy def fii ci femme de la fayda bu Médina maa ngi oo sama jigéen ñi nekk ci femme de la fayda nañu ko doon defee bu leen ci kenn ëppale doole bi ñu doon ñëwee ñu ngi ñaan ñoom ñëpp ñu ñëwee ko doole ñu jiital ci maire Lalla Fall mu jàpp ci ndax moom bu mu ci jàpput damu ko daan defee mu defee ko noonu rek ndax kenn mosuñu cee raw bon nag maa ngi oo ñëpp di oo waa Kaolack ne lii social la te weeru koor yàlla def cee digale ngay dimbale jaamu yàlla yi te loo ci def sa bopp nga ko defal ñu ngi oo ñëpp pour ñu ñëw jàpp ci ñi ñu xam ak ñi ñu xamut tarixa yëpp nag la ñu oo bàyyiwuñu kenn maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu le 14 jeudi 14 à 8 heures ba di heures lañu koy def këru gan ñëpp xam nañ këru gan ñu ngi o ñëpp ñu ñëw teewu fi bañu ñu kilo suukar bañu ñu tàndarma bañu ñu dara lu ñu am rek lu waaye am rek indi ba leen dara maa ngi lancé appel nag famille ñëpp maa ngi gërëm waa femme de la fayda di gërëm sama famille ndax ñoom ñëpp jàpp nañu ci aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwata illa billahi al aliyil azim نيجي نيو الخليفة العام شيخ محمد الماهي إبراهيم يس دي نيو مولم أي رقم دي نيو إمام الأكبر شعر جان علي سيسي دي نيو مولم وادك بيب دي نيو بريزان سار الدين ناشونال موي شيخ محمد المون أمينة إبراهيم يس من نقدر نقول لانس أبل وادك بي ndax bay sawoyu tank damay lance appel parce que ñep xamna cheikh ibrahim radiyallahu ta'ala lu mu doon def ci mbax ak lu mu doon def ci social te mo ci serigne te li moko initier ndax mission rek la ñuy continuer kon ñu ngi lancer appel jeunesse médinoise bi di lancer appel jigéen ñi di lancer appel booleem kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci Médina di wax ne lii ñu leen ci o parce que acte bu noble la te Cheikh Ibrahim jàngale na ko ci ay téeréem yonent bi jàngale la ko kon ñu ngi ciy oo ñëpp di wax it ne vraiment sëñ Aliou Niang amal nañ ko ngërëm muy président Ansaroudine départemental ndax action yu ñu nekk yëpp moo ñu ci gën a poussé di ñuy expliquer yan voie lañ war a jaar ba agsi fu ñu war a kon ñu ngi koy ñaanal moom Seydou Aliou Cissé Niang di ñaan yàlla en bi nga xam ne yàlla en na ko yàlla na oyof di ñaanal tamit bureau département bi yëpp ndax ñëpp a ci dugal seen loxo commission yëpp intercommission ci la ñuy liggéey kon ñu ngi sant commission yëpp di euh, sant commission finance bi nga xam ne wax dëgg fa neex yàlla am dugal nañ seen loxo ci action bi di sant président Moussa Koro bu baax a baax a baax a baax ndax yaatal na liggéey bi bu baax a baax a baax touché na ay personnes macha allah yoo xam ne de ressources yoo xam ne dëgg-dëgg dugal nañ seen loxo ko moom tamit ñu ngi koy ñaanal wér ak gudd fan di wax ne liggéey bi daal ci gàttal xadara bi moo ko moom liggéey bi ansaaru diin moo ko moom xadara bi yëpp ñoo ko moom kon ñu ngi ci oo ñëpp di sant di gërëm tamit Kossy TV bu baax a baax ndax Kossy TV action yi ñuy yëpp ci xadara bi da ciy taxaw dëgg fa yàlla ñëpp ci war a jàpp kon Kossy TV ameel nañ ko njukkal kon ci tur ñaanal yàlla fa mu bëgg àgg yàlla na ko fa yàlla àggale boo ba fi nekk ci dëkk bi ñu leen sant ñu ngi leen di gërëm di wax allahuma salli ala sayyidina wa sallim la ilaha illallah la ilaha illallah Wakoly TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak yéenay liggéey faydu baay bi ci ji barahama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barxama ñu ngi gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa